moom nag mu ngi àddu sur l'affaire générale Condé. Thierno Alassane Sall l'affaire générale Condé non yow. su su juumloo. réactualiser réactualiser nga mois de le <laughs> société civile sénégalaise justement qui s'organise pour avoir des meilleures euh, règles électorales. <laughs> voilà euh, société civile démb dafa doon tase ak ñi nga xamante ne ñooy acteurs politiques yoo xamante ne yu bëre yu nekk fii ci Sénégal. Mm. Euh, ngir euh, waxtaanee lu nga xamante ne moom mooy règle électorale yi lëkkaloo ci ak National Democratic Institute benn organisation boo xamante ne dafay américaine luy yëngatu si wàllu élection ñoom na ko lu ñu bëgg moom mooy waxtaan ba nga xamante ni processus électoral yu ñu jëm fii ci Sénégal ñu jaar mu jaar yoon lalu démocratie ak lu leer naa ñi mu bañ am ay werante euh, nee ñu suñu noppee nag dañ def benn cahier boo xamante recommandation yi ñu ci def yëpp ak euh, li nga xamante mooy rëq-rëq si élection yi weesu yëpp mm-hmm. euh, ñu dëxañ ko si kayit googu ngir mën ko jox ñi nga xamante ñoo di autorité yi Moundial Cissé fekkee na mbir mi moom mu jiite 3 ONG 3D yëkkati mu ne rencontre bi dina tax ba nga xamante ni ñu xam si wàllu élection Sénégal fu mu mënee mm-hmm. ak tamit foo xamante ni foofu lay sooxee ndaxte lépp euh, suñu paree euh, dinañ ci euh, def dinañ ko def benn projet jébbal ko ki nga xamante ni moo di président de la république di wax ne am na ay directeur yoo xamante ni si wàllu transparence démocratie yu bëre la ñuy yëngatu si Afrique wante tamit fii ci Sénégal lëkkaloo ngir ngir prochaine élection yi nga xamante ni moom la ñuy organiser fii Sénégal mu mu mu mu jaar yoon waa ministère de l'intérieur aussi tamit tamit ñoom ñi ngi woon ci euh, ndaje mi ñi nga xamante ni ñoom ñooy représenté institution yi fii Sénégal tamit euh, mu ngi ci euh, Birame Sène moom mu nekk DG moom moo doon moom moo teewaloon ministre de ministre de l'intérieur di wax ni ambassade ambassadeur bu britannique bu Angleterre ak bu Amérique États-Unis ñoom tamit ñu ngi woon si ndaje mi loolu yëpp ngir fexe ba jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñoo di autorité sénégalaise ak tamit société civile bi ngir ñu am expertise lu nga xamante ni moo di wàllu élection secrétariat national bu APR Babacar ñoom nag ñu ngi def front contre Ousmane Sonko. waaw ginnaaw bu nga xamante ne am na ay mbir lu xew assemblée nationale Ousmane Sonko waroon def déclaration politique générale mujj ko def ndaxte règlement intérieur bi la ñu wax ne. baaxul ñii di secrétaire exécutif national bu APR ñoom def nañ benn communiqué démb su guddi la génn euh, communiqué bi nag ñu ne lu Ousmane Sonko wax jaaxal na leen torop wante ñoom am nañu beneen moyen euh, pour euh, tontu ki nga xamante ni moo di Ousmane Ousmane Sonko ndaxte moom dafay menacer ñi li nga xamante ni moom ñoom ñooy député yi te assemblée nationale institution la dañu ko wane ñoom kenn du leen menacer premier acte bi ñu jël ñoom nañ nee def projet de loi xamante day tax euh, exécutif euh, Bassirou Diomaye Faye dootul mënati daaneel li nga xamante ni moom moo di euh, assemblée nationale beneen bi moom moo jëm ci groupe benn Bokk Yaakaar ñu ne bureau assemblée nationale nañ ko joxaat ay doole ba mën a taxaw ba nga xamante ne dina bloqué comme li xewoon ci débat d'orientation budgétaire bi nga xam ne dañ ko bloqué woon ministre des finances waroon ko def mm-hmm. secrétariat bu APR tamit mu ngi wax ci institution parlementaire ñoom am nañ ay prérogatives comme bi ci biir communiqué bi tamit euh, ñu ngi ciy wax ni député yi bokk ci opposition boor ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy non aligné yi ñoom ñu ñëw wuy si li nga xamante mooy seen combat défendre lu nga xamante ne moom moo di seen institution di wax ne Ousmane Sonko waroon def déclaration générale politique générale maa ngi ko doon wax euh, mu ne règlement intérieur bi euh, demewul noonu euh, enfin règlement intérieur bi nekkul aux normes dañ koy soppi joxe woon benn délai à partir du 15 juillet su fekkee ni defuñu lenn lu si war moom na def beneen déclaration politique générale te faneen la koy defee loolu député yi di ko ŋàññi bu baax a nga xamante ni moom moo di Thierno Alassane accompagner Ousmane Sonko au lieu mu liggéey des politiques. Euh, ñu wax ci moto Jakarta yi. waaw moto Jakarta yi ñëpp xamee ne fii Dakar ak Sénégal yëpp daanaka liggéey la boo xamante ni ndaw yi moom lañu ñu gën a gis euh, gën a gis dañ ko euh, ci année yi nga xamante ni dafa weesu fii Dakar embouteillage yi. ak lu nga xamante ne moom moo di cherté transport bi. Mhm. moom daanaka moom moo tax euh, ci mbeddi ndakaaru yu bëri moto Jakarta yu bëri lool euh, ndaw yi daanaka ñoom ñoo ci euh, liggéey lu bëree bëri ñoom nag ñu ngi toll ci Sénégal gi yëpp. six mille euh, six mille la ñu euh, te ku nekk boo xëyee daanaka majorité bi di nga am quinze mille wala vingt par jour mën na nekk pas tous les jours mais c'est possible nga am quinze mille wala vingt mille ci lu nga xamante ni moom moo di moom moo di chiffre d'affaires wante paradoxe bi moom moo di ci moto ci moto euh, Jakarta yi suñu xoolee li nga xamante moom lay rapporter économie Sénégal bien que dañu ko dañ ko léser cent million lay coûte lay lay lay lay euh, contribuer ci lu nga xamante ne moom moo di moom di économie moom moo di affaire ñu en boo jëlee li nga xam moom lay coûter état Sénégal ak Jakarta lu ñuy gagné loolu yëpp soo ko jëlee au total mu ngi nekk cent millions ci suñu xaalis mu nekk loo xamante ne lu ñu warul négliger la mhm. ndaxte boo ndaxte ñu lu ñu notee moom moo di jeunes yi ci yëngatu yëpp euh, daanaka soit dañoo arrêté seen jàng wala ñu nekk ay diplômé yoo xamante ni amuñu amuñu liggéey ba pare aussi tamit secteur bi moo nekk secteur bu gën a causé euh, lu nga xamante ne moom moo di accident. 9000 mhm. euh, accidents la par euh, par an bu fekkee oto yi particulier yi mu ngi nekk mu ngi nekk mu ngi nekk 6000 ba pare aussi tamit nee nañu la plupart ay sàcc yoo xamante dañ koy sàcc ñu ñooñu dañuy dawal enfin ci kaw ay moto la ñuy la ñuy nekk am benn benn benn jeune nag bu ne état Sénégal daf leen war a jàppale ndaxte ñoom li ñuy contribuer ci lu xam moo di économie Sénégal amuñu benn règle ba pare ko tali bi ñuy dawal ndaw ñoom daanaka dañ leen siis tali bi te loolu du dëgg du yoon boo jëlee daal Sénégal ci dix jeunes trois yi ma ñaanaam ñett ñi eh, dañu nekk ci Jakarta euh, te boo xoolee profil yi soit dañ doon jàng ñu bàyyi wala ñoo xam dañoo am diplôme te amuñu liggéey ñu mujj dem ci li nga xamante ne moom mooy dawalu moto jakarta yi jërëjëf Pape ñu jaajëfal bu baax a baax xibaar yi am na solo mbokk yi des leen ak ñu ñu proposé leen ngeen seetaan benn clip léegi-léegi bu bàkk bi noppee et après ñu dalal suñu gan fas yéene sekk ak ñoom waxtaan wi am solo